di baal ñëpp ak di ñaan yàlla yàlla bu mu nekk suñu mujj koor di ñaan ñu oor ko ci bismillahi rahmaani rahim eggale kook alhamdulilahi rabbil alamina màng ci ay yiw yu baree baree baree bare mbokk yi koor nag a ngi noonu boo ko seetloo mooy ñeenteelu ponk farat waaye mu am yeneen yu mu symboliser waat ci biir tey nag bi ñu ciy indi mooy julli mbokk yi nga xam ne mooy jaamu yàlla gi nga xam ne lu nit di defal yàlla ci ibaadaat lu ko ca gënal mën nañ ne bariwul di jaamu yàlla gi gën a sacré nga xam ne boo ko bàyyee presque mën nañ ne la obteniroo lislaam parce que tudd baati seede yi képp te adhéré woo ci nangoo sëgg siggi di julli mbokk yi sa dugg ci lislaam des na parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon umirtu an uxaatila annaasa xatta yashhadu bi an laa ilaha illa allah wa yuqimu salaata wa yu'tu zakaata fa ida faalu dalika asamu minni dimaa'uhum wa amwaaluhum wa xisaabuhum fillah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne yàlla jox na ma ordre ci ma xeex nit ñi ak ni yàlla bañee bagaar ni yàlla bañee xeex mu ne yàlla jox na ma ndigal ci ma xeex ak jullit ñi ci ma xeex ak nit ñi ci lan ba ñu nangoo seede ne yàlla rekk mooy yàlla keneen du fi yàlla ba ñu nangoo seede ne man mii ndawam laa jaamam laa waaye it duñu ci yem ba ñu nangoo taxawal julli nangoo woor weeru koor génne azaka ak màkk suñ ko mane leneen lu ñu defati nag seen rek la yàllaa ko yor bi ci gën a sacré nag mbokk yi muy julli ndax asalaatu imaadu diini man tarakaha faqad taraka diin faqad hadama diin wa man aqaamaha faqad aqaama diin yonent bi sallallahu alayhi wa nee na jullit mooy fondation lislaam immeuble mbokk yi kenn mënu ko teg te teguloo fondation kon l'islam bépp ibaadaat boo ciy def rek mi ngi teg ci ginnaaw julli nga seet ni julli sax moom boo ko doon seet symboliser na mboolem xeeti jaam yàlla yi ndax bi nga kàbbaree bëgg julli tudd nga baati seede yi muy benn kon adhéré nga ci lislaam nga seet ne bi nga kàbbaree di julli um nga koor ndax ba ba ngay sëlmal doo fi lekk doo fi naan nga seetlu ne it bi ngay julli yaa ngi jublu xibla kon yaa ngi tawaaf kaaba ga waaye nga seetlu it ne bi ngay julli yaa ngi génne azaka ci sa bopp parce que azaka ji ngay génne ci sa bopp mooy physique bi ngay def kooku azaka la kon jullit daal liñ ci mën a dégg mooy li feeg mi ngi nangoo julli jullit la waaye bu nanguwut a julli du jullit yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ci xadis xuzayfatu bnul yamani soloo ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jooy jooy yu metti xuzayfa ne ko looy jooy yow mi yàlla yónni mu ne ko naka laay def ba duma jooy yow xuzayf mu ne ko jamono ngi ñëw sama xeet wi dana ca am ñu ca bokk ñoo xam ne danañu bàyyi julli danañu topp seen bànneexu bakkan danañu dem ba alal moo leen di gënal waxtu danañu dem ba perte perte dërëm perte waxtu moo leen koy gënal danañu dem ba seen occupation dootu leen may ñu mën a julli xeet woowu bu ñu ñëwee ñoom nan ñan moo ñan ñoo leen di ràmm moo tax yàlla wax ko ci alquran ne fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wa tabau sahawaata fa yal sawfa yalqawna ghayyan yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nee na ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana am ñu la fi uutu aay ji wax nañ ni kër bi ko jibril jàngale dafa jooy ba sonn nekku ndax da nga bëgg a wax yow jibril ne sama xeet bi bu mu fi jógee danañu bàyyi julli jibril ne ko danañ bàyyi julli ñu ci bari dana ñu bàyyi julli mu ne ko bu boobaa lan mooy pacte seen diggante seen borom pour ñu mën a mucc mu ne ko ma illaa man itaqada inda arrahmani ahdan al ahdu hiya assalawaatul xams mu ne ko pacte biñ mën a jafandu seen diggante seen borom pour mën a rëcc mooy nangoo taxawal julli juróom képp moo tax mbokk yi dañuy wax ne mboolem xeeti ibaadaat yi ci kaw man-man la tege ba mu des julli julli moom man def mënul def bëgg def bañ def te sunu benn maam bu baax radiallahu anhu alxaaji abdul aziz si dabbaax daana wax ca woyam wane mboolem ibaadaat yi jullee di bopp ba te dog ko gënul dañuy wax ne nag aw yaram mën ngaa dogub loxo borom dund mën ngaa dogub tànk borom dund mën ngaa def leneen borom dund waaye bopp moom mbokk yi buñ ko daggee laxa suuli rekk moo ciy topp yàlla nañu yàlla def ay jullikat piir yàlla nangul nu suñu julli yi nangul na sunu nawaafil yi nangul na sunu sadaxaat yi yàlla def ñu ay euh, jullit ay saalixiina euh, yàlla defal ñu dégg ak topp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu